asalaamaaleykum mbokku internet yi ñuy suivre ci référence actu tey ñun suñu émission gan gi ñu dalal ci euh, Alioune Fall Alioune Fall nag moom mooy euh, njiital euh, Zénith Énergie. Mhm. am li nga xamante ni mooy station service yooyu nga xam ne zen yi nga xamante ne ñu leen di gis ci dëkk bi. Mhm. sëriñ bi fal ñu ngi leen di. maa ngi lay fay di la dalal. Mhm. di la wax soyez le bienvenu. ok ok sëriñ bi dañu gis. depuis presque benn at ñu gis euh, partout à Rufisque gis nañ ko fii gis nañ à Tivaouane Peulh les les stations zen mhm. euh, ñu gis ni loolu loo gis rek lu yëngu lu ko yëngale ko ëpp doole ah am na qu'est-ce qui est derrière ça qui est Aliou Fall mhm. lan lan lan moo ko poussé pour mu teg yi mu teg fii ci réew mi ok maa ngi lay euh, gërëm si dina ñëw leen euh, xamal ne actuellement mhm. man la Alioune directeur général du Zénith Énergie mhm. je peux dire directeur général de Zénith Group parce que Zénith c'est un groupe mhm. dans Zénith il y a plusieurs euh, démembrements il y a Zénith Steel Zénith Construction Métallique Zénith Énergie mais euh, bi nga xamante ne moo ñu waral teewaay bi tey fii moom mooy Zénith Énergie Donc Zenith Energy, euh, c'est une société qui est spécialisée dans la distribution de carburant. Donc, euh, depuis, euh, comme nous depuis 2-3 euh, ans, mm -hmm. comme vous l'avez constaté, on commence à se développer un peu partout au Sénégal. Mm -hmm. En l'occurrence, dans la région de Bakira, Dakar. Dans la région de Dakar, voilà, on est présent à Tuawanpeul, à Rufisque Est, à Kër Mbaye Fall et eh, Inch'Allah très bientôt à Diamniadio. Mhm. Donc c'est pour vous dire que bon voilà, il une dynamique mhm. de vraiment faire en sorte que Zenith Energy soit demain comme les sociétés multinationales. Mhm. donc euh, en gros loolu laa mënoon a wax. ci présentation Zenith. loolu nga loolu mën a wax. loolu nga mën a wax mais euh, Zenith Énergie. Euh, xam naa dina ñëw léegi ci impact bu mu am mhm. ci liggéeyu ndaw yeeg dégg mhm. waaye toujours ci ci ci yow mhm. euh, am nga jaar-jaar xëyoo xëy rek teg lii lan fan ban jaar-jaar nga am ba am xel ak xalaatu teg li nga teg waaw euh, bon comme tout Sénégalais je sais que pratiquement je peux dire que tous les Sénégalais dañu am dañu bëgg seen dëkk bëgg seen réew. Mhm. man en 2002 la retourné au Sénégal à l'époque c'était à l'appel du président Ablaye Wade dina ñëw leen yéen ñi nekk bitim réew ngeen jàppale seen réew. Mhm. man nag avant de ma ciy sori dama naan la je suis ingénieur en structure métallique lépp luy xamante ne mooy wàllu weñ mhm. ouvrage métallique loolu je suis sama domaine si laa ñëwee en même temps bi may ñëw indaal une multinationale française ici au Sénégal représenté les ñu liggéey on a fait de gros chantiers ba en bi ñuy retourné bi ñuy dellu man j'ai préféré rester au Sénégal donc depuis lors nag ci laa installé sama entreprise tuddee ko Zénith la nag euh, comme tout bon sénégalais di bay tama wàllu ci waar wi donc euh, ci laa commencé di développer macha allah et depuis lors ñu ngi sant yàlla. et au moment où je vous parle le groupe Zénith emploie des centaines de personnes. des centaines de personnes je vous dis. et la majeure partie je peux dire des jeunes et la moyenne d'âge est vraiment très jeune. ça varie entre 20 et 30 ans. Et je dis que c'est des centaines de personnes qui sont employées aujourd'hui pour le compte de Zénith Énergie. Mmh. Zénith, euh, je peux dire en gros pour le groupe. Mmh. Ouais. Pour, pour, pour, le groupe. Ouais. Mais nous euh, disons euh, Sénégal est un pays pétrolier. Ouais. Et euh, à partir de 2024, nous allons commencer à exploiter ce pétrole. Mmh. Il y ci ci ci secteur. Mm-hmm. Euh, ban, ban, ban te gis nañ ni sénégalais yi ci nekk. comme ni mm. nga ci nekkee ni bariwul à part ça c'est des multinationaux ñoo fi nekk. Mm. yow ban ban changement ban qu'est-ce qui va différencier. Mm. Euh, yow sa offre par rapport à la distribution de carburant que les autres. bon moi je dirais que en fait euh, suñu objectif moom mooy être la population satisfaire la population. Et à l'entame de mes propos, je vous ai comme tout bon Sénégalais, ñun jiitaluñ suñu bopp ñu jiital d'abord bëgg-bëggu askan bi dañuy jaamu askan bi bien que nous ne pas des philanthropes mais nag euh, lépp lu ñuy def rek bëgg nañ ci waa góor donc réew mi la ñuy liggéeyal suñu réew la e je sais une chose que bëgg nañ fu ñu toll fu ñu toog. ñu ne ñu suñu réew. naan Sénégal. tey jii macha allah ah yàlla na yàlla. xeeb dool yi mais je suis fier d'être sénégalais partout où besoin. et quand je suis surtout à l'étranger j'ai la fierté de dire que je suis sénégalais. waaw parce que depuis un certain temps gis nañ quand même mi ni muy doxee. Mhm. et en passant j'encourage aussi les dirigeants les autorités sans oublier le président de la République. Mhm. voilà gis nañ li muy liggéey ci réew mi. Mhm. ba tax na le Sénégal est dans une très bonne voie il est dans une dynamique d'être un pays sous peu émergent. émergent donc nag loolu aussi ñu ngi chapeau. aujourd'hui nañ ñaan yàlla daal jàmm continuer et je sais bu jàll jàmm continuer ci Sénégal gi incha allahu rabbi suñu réew mi mhm. dina nekk un miroir d'un pays émergent mhm. à travers le monde mhm. un miroir d'un pays émergent mais ñu gis ni dafa am particularité boo indi si distribution de de carburant mooy euh, pour les voitures à gaz gis nañ ni yow aussi euh, sa particularité la nga am station buy buy buy servir le gaz lan moo la ci loolu. bon li ma dugal ci loolu mooy que ne voilà je suis un opérateur économique. voilà un investisseur un observateur. Mm-hmm. j'ai vu que les Sénégalais ils actuellement et les transporteurs. Mm-hmm. j'ai vu l'État a fait un effort de leur doter des taxis, ce qu'on appelle des taxis euh, banlieues. J'ai vu un peu partout que des taxis, bon, vert blanc, ça commence à se répandre au Sénégal. Je me suis posé la question, mais tiens, ça c'est bon parce que c'est des mini-taxis de 7 places, très efficaces, silencieux et qui transportent euh, des gens facilement. J'ai dit, bon, mais tiens, et après qu'on m'a expliqué pour me dire que c'est des taxis qui fonctionnent avec du gaz. des taxis hybrides. Mhm. Donc j'ai dit, mais tiens, est-ce qu'ils prennent le gaz On m'a dit que bon, voilà, il y un point seulement, uniquement dans la région de Dakar où ils peuvent s'approvisionner. Je me suis posé la question, mais pourquoi Ils me que bon, vraiment, c'est une ligue. mënoon na baax bu bu fekkonte ne amoon nañ plusieurs points parce que actuellement il y des défauts d'approvisionnement ou bien même s'il y a du gaz aussi ils perdent trop de temps pour s'approvisionner. Parfois, ils restent deux, trois jours sans pour autant avoir du gaz. C'est ainsi que j'ai dit, bon, mais écoute, voilà un créneau sur lequel je pense pouvoir mmh. investir. investir, ne serait-ce que pour soulager la population. Parce que le transport occupe une part très importante dans l'économie. Si aujourd'hui on parvient à approvisionner correctement le gaz, cela suppose qu'on va diminuer le coût du transport. Si on diminue le coût du transport, mais c'est au grand bonheur de la population. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas C'est ainsi que j'ai commencé à étudier le projet, à travailler en synergie avec les transporteurs. Et c'est ainsi que vraiment j'ai euh, pu avoir, euh, comment dirais-je, l'expertise euh, des spécialistes de la, du gaz pour pouvoir asseoir ce que vous avez vu aujourd'hui. Mmh, mmh. Aujourd'hui, j'ai la capacité au moins de fournir du gaz 24 heures sur 24 heures pour une flotte qui peut faire jusqu'à 2000 véhicules. 2000 véhicules. Donc euh, c'est un projet quand même que je compte développer un peu partout, au Sénégal mhm. pour inciter les gens à consommer, à prendre les véhicules euh, à gaz mhm. qui est très pratique pour le transport mhm. et au grand bonheur euh, de la population. Est-ce que nekkul aussi ah, ci beneen fànn dans toujours dans la projection. Mm-hmm. Euh, du ñu du ñu par exemple état bi. Mm-hmm. mu mu mu mu mu faciliter. Mm-hmm. voiture à gaz yi gën a dugg Sénégal même bu nekkee ay voiture euh, personnel lay doon. nga xamante ne comme gis na ni gaz bi moo gën a moins cher pour la population vu que vie bi dafa cher est-ce que état bi bu gënoon euh, yombal Sénégalais yi ñu am des voitures à gaz comme ça du gën a mun a développer filière bi ngeen entamé. Oui, très bien sûr, bien sûr, je dirais bien sûr. Mais euh, quand même, euh, comme on dit, euh, c'est parti, je vais créer le besoin. Ouais. Ah, moi, avant tout, il faut créer le besoin. L'État, bon, comme on dit, hein, euh, mhm. c'est des êtres humains qui sont à l'écoute. Mm -hmm. Et si on leur propose des projets, je pense bien que comme ce projet-là, mm -hmm. ils seront vraiment très partants. Très bientôt, je vais essayer de voir euh, les autorités. le ministre qui est chargé de la, euh, du transport, euh, avec euh, son équipe, et pourquoi pas le chef de l'État, qui est vraiment très pragmatique et qui veut vraiment faire bouger les choses. Mhm. Essayer de lui proposer Ça, je sais que c'est une affaire sur laquelle il ne va pas cracher. C'est une affaire sur laquelle il ne va pas cracher. Oui, donc euh, je vais tout faire pour développer ce projet-là. Je suis et je peux. Et ça ne s'arrête pas dans l'approvisionnement du gaz, mm -hmm. mais il y a un autre volet qui est derrière, qui est la transformation mm -hmm. des véhicules, je peux dire essence, essence ou gasoil, en gaz. Ok, ok. Cela veut dire... Euh, Ok, donc vous avez la capacité mhm. de, de, prendre ces voitures-là mm -hmm. qui existent déjà, qui utilisent le gasoil ou, l'essence, mhm. et vous avez la capacité de les changer pour qu'ils prennent du gaz. Oui, bien sûr. Euh, et pour vous dire, cela prend maximum 8 heures de temps. 8 de temps. Pour transformer un véhicule essence en gaz. 8 heures de temps. le matin, tu viens, tu déposes ta voiture, le soir, tu, viens, tu reprends, tu reprends ta voiture. Tu euh, mets du gaz. Et c'est une voiture, ça devient une voiture hybride. Hybride, si tu as du gaz, tu fonctionnes avec du gaz. Si ça fait défaut, tu peux basculer dans, dans en la, essence. Dans la consommation, oui. bonne Non, dans la consommation, tu sais, le gaz. Le gaz est beaucoup plus rentable du point de vue euh, coût mm -hmm. et du point de vue, euh, comment dirais-je, euh, écologique économique en termes de de de de, de distance parcourue. et sur Moi, point de vue environnement aussi. du point de vue environnement il a moins de pollution. 95 pour cent de moins de pollution par rapport à l'essence ou le gasoil. Et vous les voitures euh, à essence, c'est des voitures carrément silencieuses. Le gaz a un pouvoir vraiment très supérieur à l'essence ou le gasoil. Je vous donne un litre de gasoil. Moi, je prends un litre de gaz. J'ai fait plus de que celui qui, a, euh, avec le gasoil. Donc, euh, et en termes de coût aussi, aujourd'hui, euh, le prix du litre de gaz est à 350. Vous voyez, l'essence est à 990. Vous voyez la différence, trois fois plus, moins cher. Donc moi je dis en fait euh, c'est une opportunité sur laquelle euh, je pense la population et plus particulièrement les autorités doivent vraiment prendre euh, à bras le corps pour son développement. Mmh. Euh, ma dernière question que say say say say say say lan nga say mbébét par rapport à, à, au business que vous avez mis en place euh, vos ambitions Euh, dans dans le secteur dans lequel vous, vous, vous êtes yan la. bon les ambitions c'est de répandre ça dans tout le Sénégal parce que je sais que bon voilà aujourd'hui euh, on les appelle ici à Rufisque les taxis banlieue vraiment ils sont tellement prisés et mm-hmm. j'ai vu euh, même euh, la visite de, de certains maires qui ont manifesté un besoin de leur mettre ça dans leur commune Et très bientôt, ça va se développer euh, un peu partout au Sénégal, ça va se répandre. Donc, euh, l'ambition, c'est de les répandre au Sénégal. Après les taxis, euh, in, attaquer le transport interurbain. Parce que pourquoi pas Parce que ce n'est pas que les petites voitures. Mm -hmm. avoir les bus, comme les bus Dakar Demdik. Mais ça peut prendre du gaz. Donc si on les utilise pour le transport interurbain, interrégional, pourquoi pas Il y a un gain a, énorme. Il y Donc euh, l'objectif, c'est de les répandre partout. Euh, monsieur Fall dafa am léegi-léegi si biir sa biir wax. Mm. da nga wax ba ne euh, Dakar Dem Dikk bi suñu yore. Mm. di def interurbain. Mm. war nañ mën a utiliser gaz bi est-ce que c'est pas l'occasion aussi de de de de de de parler de d'inviter le président de la République à s'approprier ce que vous faites ba nga xamante ne. toutes les entreprises yi nga xamante ne de de de transport yu nekk ci dëkk bi yi nga xam ne état bi moo ko moom ak même les voitures particulières de l'état ñu mën a jël li nga xamante ne un sénégalais de souche moo ko moom ba pare mu ko initier ñëpp ko def ci ci réew mi. bon aussi euh, comme ni nga ko waxee man euh, je pense bien que je l'avais dit ku ma toogal loolu laa koy wax nee naa leen le président de la république. monsieur Macky Sall bés bu gisee projet bi dina ko magnifier et il va dire que ne et il ko il en sera parce que c'est un ingénieur avant tout c'est un ingénieur et je sais que ne projet bi bu ko gisee il va dire que ne voilà un bon projet parce que bu dul dara le Sénégal va être très bientôt un producteur de gaz donc gaz boobu tey ak projet bi dafa méngoo tey jii gaz amagu fi fexe na ba litre gaz di jar. trois cent cinquante oto yi war ko mën a jël di ci liggéey tey jii à l'unanimité tous les chauffeurs de taxi banlieue mooy les taxis vert blanc la boo leen laajee dañ ñaan la macha allah ñu ngi ciy gis bu baax suñu bopp ñun kay nañu ñaan yàlla rek gaz bi di présent toujours di am. mais suñu liggéey macha allah donc tey jii kooku bu ñu demoon ba commencé produire suñu gaz kooku waxatuñ ko donc comme ni ma xamee le président de la république il va tout faire à ce que le prix gën a wàcc. Mhm. donc li ma koy ñaan moom mooy ñun ay sénégalais lañ suñu objectif mooy jàppale ko jàppale ko mooy jàppale réew mi donc ñu ngi koy ñaan aussi bu fekkente ne mën nañu recevoir toogoon on est prêt à investir à développer. ñun le fait qu'on utilise le gaz on contribue à la dépollution le gaz ne pollue pas et je sais bien que ne le Sénégal bokk na ci pays ratifié aux Nations Unies la lutte contre l'échauffement climatique donc le gasoil l'essence il pollue contrairement au gaz moom moom ko gën a xam tey jii moom lii may def nii bu ko gisoon tey jii moom lépp lu ma ci xam xam na ko na ma la moom ingénieur la. te nekkoon na directeur. Euh, nekkoon na Petrosen donc kii c'est un projet vraiment à encourager li ma leen di ñaan moom mooy na fexe ba gis ko. incha allah bu ko gisee il va en faire son affaire personnelle. je sais ne au niveau mondial tey jii on fait tout on encourage les pays. la dépollution te lii tey jii bokk na ci li nga xamante ne tey jii moo mun a xeex bu baax la pollution mhm, donc nag li ma koy ñaan rek moom mooy bu gisee projet bi aussi bu laajee ñu toog ñu toog ñu waxtaan ñu jéem a mhm. lañ ko mën a développer mu tax ci Sénégal dans la sous-région et un peu partout en Afrique je sais que ne ici xaw ma yeneen réew yi de mais au niveau de la sous-région li am fii nii nii ne tey jii c'est une grande première dans la sous-région. la sous-région. Okay. Le Sénégal a la primeur de ça aujourd'hui. Donc nag euh, nañ ñaan yàlla au moins mu def ci loxoom jàppale ñu ñun ndaw ñi ñu jéem a xool aussi nu ñu ko mën a wasaaree pour que tous les Sénégalais surtout les jeunes am si duñ jàpp. Aline fa nga nga tàggu suñu internet yi tàggu sénégalais yi yi lay seetaan. bon di jaajëfal ñëpp. di jaajëfal ki nga xamante ne c' est un de mes proches collaborateurs mooy Mame Gour Diazaka. Mhm. bon je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas c' quelqu'un qui a accompagné aussi pour le projet. Mhm. sans oublier le staff tout le staff de Zénith. ñooñu moom dama naan sax ci liggéey bi la ñu bokk. mais kii euh, soppe boo xamante ne moom mooy Mame Gour. Mhm. koo xamante ne vraiment dafa ñëw fekk ma ci liggéey bi aussi mu jàpp ci. voilà et je une chose dina ci man moo ne ci moom. parce que aussi gis naa moom aussi li muy def ci réew mi. ak ni muy jàppalee askanu Rufisque. donc daal euh, li may wax moom mooy la jeune génération on a l'objectif c'est de faire en sorte que ñii di ñëw topp suñu ginnaaw. Mhm. ñu nekk seen royukaay. et c'est pas facile de dire à tout un chacun xoolal ci man un bon père de famille il doit être en mesure de dire à sa famille roy leen ci man. Mhm. ku am fitu ne rawe leen ci man rek c'est parce que doxal na te li mu doxal def na ko ci yoon donc nag ñun bëgg nañ ëllëg ñu ne génération bi topp si ñun roy leen ci ñun mhm. et je sais que sur fond comme nous sommes de faire ëllëg def naa ne Sénégal macha allah dina dem incha allah incha allah euh, comme li ñuy faral di wax ñu ngi sant di la gërëm euh, nga nekkoon suñu gan ci émission gan gi ñii euh, la rek ndax doomu réew mooy defar réew te dëkk ci dëkk bi hmm. boole ko defar dëkk bi non mais dëkk ci dëkk bi comme on dit defar dëkk bi il faut vivre utile voilà ñun nag suñu Sénégal la uh-huh. on va faire en sorte que macha allah uh-huh. mu dox mu dem. mu dox mu dem Sénégal ñu ñaan yàlla na jàmm di continuer rek. incha allah incha bu jàmm di am. Mm-hmm. incha allahu rabbi réew mi dina dem. Mm-hmm. yàlla na fi ñaan bi nga wax yàlla na fi jàmm sax. réew mi kon ne ba sénégalais bu nekk foo nekk gis li nga gis ci sa bopp. donc suñu mbokk internet yi mu nekkoon Alioune Fall. nekk euh, njiital Zenith Group. Mm-hmm. Euh, yi nga xamante ne ñoom yore station Zen yi nga xamante ne yéen a koy sedd ci fépp ci région de Dakar yi. ñu leen di dig beneen jotaay ak beneen gan.